taga gan ñëpp ki may taga raw ñëpp yéen ñi soppee gëm eh. sama géer seen géer moom duma su jaam ñi géeru géer ñange gëm leen dina baaxe ki may tagga gën ñoom lay lay la la laa sama géer seen géer moom du maasu jaar ñi géeru géer ñaa ngi gëm leen dina baaxi ee waaw lay lay la asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk internet ku ne ku ne ngi lay fi nga toog ne la jàpp loxo gis ngeen ma tey dama dellu si waat rek sama kër comme saa su ne rek ni ma koy defee maa ngi fii nga xam ne moom moo euh, comme ni petit di waxee maa ngi xule xule yi foofu laa nekk tey nag kan moo xewle macha allah ñu ne borom yaay euh, borom euh, suñu yaay ju baax muy kan nee naa ko gisee rek sama xel day dem ci première dame nga xam ne macha allah dafa nekk jigéen ji nga xam ne jigéen ju mun góor la dafa nekk jigéen ji nga xam ne dafa takk sëram bu mu dëgg rek fas yéene jàppale doomu aadama yi fas yéene jàppale néew di doole yi tey nag dafa ñëw pour def spécial ndogu pour daal dem yóbbu ko ci jàkk yi yóbbu ko ci kër almodo yi yóbbu ko ci ñi nga xam ne maanaam seen loxo jotul seen ginnaaw macha allah comme ni ko ñi ñuy waxee rek nee nañ du yàgg na ko def ay ati at damay daal di dugg ci biir rek xool ñi ñu nuñ toogee wax ma tey lan lañ yëg ci ndogu macha allah comme ni ma leen waxee woon papa nuy lay fay bu waa yaa ngi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ñëw fekk la fii sunu yaay ju baax jooju ajaratu ju baax jooju muy def li nga xam ne moo nekk joxe ndogu euh, tey euh, su la doon laaj lan nga ci xam euh, lan nga may wax xanaa di sant yàlla bu baax di ci kontaan ndax lii lu mu yàgg def la xam ne ko gën yaata muy ndax wax lu baax kanam kanam rek ci ne ndax ci loolu lay dox ak ko bokk ay magam ay rakam ay ay ak doom ci rek dund suba moom moom fa tabaarakallaaw wax bu ci kanamee sax di nga a xam ne xew ndax moom seen dara tuutiwul daal noonu la ko mën a waxee ñi nga gis ni ay mbokki muudu xule lañu ñu bokkal ndey ak baay man seen doomu nijaay la seen doomu bàjje la ma sama yaay ak seen papa bokk ndey ak baay waaw ba tax na daal kontaan nañ ci lool kontaan seen teewaay ba xam ne daal bis bi daal lépp loo xam ne mën nañ ko di ko def te mu rafet rek ñu ko ciy def ndax ndax gi koor gi jar na ko joxe ñam jar na ko ak yu baax yi ci nekk yëpp ba tabaarakala ma service am tamit ñëpp ñëw na ñoom Moussa Ndiaye tout ak yéen ñu baax ñi ñëw di ko defar ba tax na kontaan nañ trop seen ñëw fi di la jaajëfal di la yeew rek te xam ne euh, daa mel ni Ndiaye la sant bu mu xaan ba ko kon macha allah euh, sama caméraman bu ñaaw bi rek mooy topp rek mu dugg ci biir xool nit ñi nuñ toogee ci biir. Euh, soxna si nuyu naa la. maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi am jàmm sant macha allah tey ñu ñoo fekk la fi ci ndogu bi nga xamne ne yaay ju baax joj mo koy def grandam mu nekk nit ku baax ñi ñoo boole ci li nga xamne mu nekk ay ñaan ñi ñoo fekk la fi euh, tay suma lo la doon laaj lan nga yek ci bëss bi tay lan nga may wax lan nga xam ci mom ci li nga xamne ne xeetu baax baax la baax mu ci yek dafa bari ndax li ma ci yek dafa bari ndax tay ji ñu def ñaan sama papa ak sama yaay ñom lañ ko defal ndax xulle sama rak la ñoo bokk nday ak bay mu top ci man faatu nga xam ne moo waral lii mu def ko tey jii xëy nañ ñun lii ñun la waral waaye sama yaay ba mu nelawee ba léegi ak sama papa at mu jot faatu nii rek lay def dafa yemoon nag koor gi ñu jaare waale ko ci wàcce waale kaamil tey boole waale ki ci di togg di ndox joxe ndogu tam ci mbedd yi lool la yàlla dogal sant yàlla rek ndax sama rakk ji tam macha allah sama rakk ji macha teg na bëgg nanu teg nay waajuram place soxnaan tam soxnaam tam macha allah ndax bu fekkee ne am na nu mu demee kon du def lii tey kon ñun ñun lii ñun la war waaye nag dara waruñu ci dana ñëw toog yëgal ñu maa nga dëkk ba Mbuur mu woo ma téléphone ma ñëw fii kon nag sant yàlla li ma gën a yëg ci sama yaram ba sentir ko tey sama xol jeex mooy suur bi sama yaay nelawee mu yemmoog heure bi tey ñu nekk feek moom bi ma fa nekkee moom Faatu moo ko yor mooy def lépp lépp mooy sang mooy def lépp kon nag ba tey jii kon firnde baa ngi kon firnde baa ngi dama koy ñaanal daal wér gu ànd ak gudd fan ak xéewal ñaanal ko xule mi nga xam ne mooy sama rakk wér gu ànd ak gudd fan ak yokk ba yëg ko rek loolu rek laay ñaan ak jàmm ak salaam rek loolu laa laa fi ñaan ak xol bu sedd waaw loolu ko déggandoo di la jaajëfal bu baax a euh, ñaanal yàlla nag borom kër gi yàlla guddal fanam wëral ay cëram ndax lépp a nag ndax bu demee bay def alaat yi lépp moom suñ kër yaagee mënal nañ ko faa defe waaye defe gisul Adja Fatou day woote ñu ñëw def fi di sama yaay gaañoo sama papa ba léegi lépp fii lañ koy def muy seetlu suñ xol kenn du ci indaale da koy yóbbu fa la koy defee kon nag ñu ñaanal yàlla ak Adja Marème ñaareelu moo ko lebee suñu dugub yàlla ñu jeex a jeex a di ñaanal sama mbokku yàlla guddal seen seen i jër nga ne nag yàlla moom moo xam lu neex ko xam yàlla yàlla yàlla def jàmm ak jàmm yëpp ñu fekk ko ak jërëjëf yàlla guddal ko yàgg koo jiite yàgg koo tax. Masya allah comme ni ma leen ko waxee woon rek euh, tey ma ñëw fekk ki nga xam ne maanaam mun naa ne sax euh, borom kër euh, bi nuyu naa la. yaa ngi am ñu ñëw fii nga teewe ki nga xam muy sa soxna nga teewe ki nga xam muy maanaam sarak bi tey nga ñëw ci li nga xam muy ndogu spécial mu koy def bu ko jox néew yu deewla ba pare defaale ci say ñaanu yaay ci ñaanu papa ko ci la nga xam ci ngi sant bu baax. jullit ci bi di leen sant yéen ñi di sant Mourou Koule Samara ak ay soxna Fat Diallo ak Mariétou Diop ak Samara di leen nekk loolu sant lu baax li nga xam ne moom lay nisar ci pour maanaam doogu ndogu jox jaam yi ñoo ko ci sargal di ko sant di ko ñaan yàlla kon yàlla doole jàmm rek ndax lii tam wax dëgg yàlla du guléet yàgg na ko def ñii man mi li ma gën a magam. lima may defal ëpp na non keneen non ko noonu lii moom dañ def ñaan yàlla rek moom bañ a ñaan yàlla ko ñëpp bu ne gisuma li ngeen di jànkonteel ngir man muñ leen dina baaxi ki may tagg gën ñaa lay lay la soppeem leen dina baax Moustapha bu leen xuloo bu leen xeex yéen bu leen xuloo bu leen xeex sopp Moustapha na baax ki may la la Moustapha jël nga ñi mamati baay boole leen ak ñoom ñi mamati yaay yaay ñu mujj doon samay waay dina baax dina baax dina baax dina masa baax lay lay la la waaw yaa ñuy solal ay yére yaa ñuy jox ay dépense nun nu macha allah comme ni ma leen ko waxee woon rek mais damaa ñëw toog ci ki nga xam ne maanaam suma yaay bu baax yooyu ah, raqal kii raq la ah, ci moom ma ñëw fekk ko fii euh, nuy naa maa ngi lay fay ma yañal alhamdulilah tey nga ñëw a teewal sa mag ji nga xam ne tey day def spécial ndogu boole ci li nga xam ne moo nekk euh, seeni ñaani goro euh, tey su ma la doon laaj lan nga lan ci xam la lan nga may wax ah sant ginnaaw yi sant yàlla julli ci yonent bi te di ñëw fekk euh, fekk ndogu li di fekk ñaan gi di ñaanal suñu borom Adja Fatou Diallo nag chaque année mu def ko moo tax ñuy def dérangement ak déplacement ñëw ba fi fekk si ko di ko jàppale di ñaan ci yàlla li muy def yàlla na ko ci yàlla fay yàlla may ko ci ndam ki muy ñaanal yàlla na ko may yokk leeram may ko eh, àjjana ju koy koy koy koy kontaan nañ ndogul ci at at bu ne la chaque année ba ko def ay at la ñaan yàlla rek yàlla nañ ba di aw ci façon yi ndax façon yu baax yi rek sunyi ñun def dañuy ñaan di def yàlla na ko yàlla fay yàlla def alaaj nag yooyu la bëgg moom toujours ay joxe ndogu ay joxe lekk moo ñun ñi ay soxnam toujours dañ loolu la ñuy roy

comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek ndagam ndagu naa ba génn ndagam man euh, yette bala lekk naa ba suur damay daal di génn rek daal di jàkkaarloo suñu papa bu baax ji euh, jarul sax ñu koy présenté waa El Vision Médias euh, xam nañ ko bu baax papa naa la. maa ngi la baax baax baax di kontaan am kontaan bu baax ci seen jotaay ak seen nangoo jàpp population yi ak di leer lu bare bare maa ngi a encouragé baax a am télévision yu kawe yoo xamante may matériel boo xam ne ak télévision boo xam ne yéen ñëpp da ngeen ci ak ñëpp mën ci xaj seen liggéey yàlla na ko yàlla gën a yaatal yàlla mën na ko yàlla ko yàlla waaw papa ñu daal di ñëw teewal la fi tey euh, ñu daal di ñëw fekk ni sa soxna macha allah mu def li nga xam ne euh, waa Sénégal yëpp ñu ngi koy coow muy def li nga xam ne muy joxe ñam comme ni nga ko waxee woon rek ñu ñëw pour firnde laat mu boole si li nga xam ne moo nekk say ñaanu waajur euh, tey bëgg naa see xam nga nga nga nga nga dugal ma ci loolu tuuti rek. waaw loolu dañu amoon suñuy waajur ñu nekk ñoom ba yàlla jëlee leen fi. ñu di ko ñaan dañu ko waroon def sax ci dëkk ba mais comme dëkk ba ñëpp duñ mën a dem ñu koy defee fii ci Dakar Fatou nag ñu ko ci gërëm parce que moom mooy organiser loolu moom mooy jàpp ñaan yi mooy def yëpp ñu doon togg na ndogu ci weeru koor bu nekk dañuy def ndogu fii jàpp benn ñu boole ko tey ñu def loolu wàcc nañ fi kaamil ñaan nañu fi jàng nañu fi boole ci weeru koor ndogu bi ñu togg te xam nga léegi sax laay wax ni Euh, joxe lekk dafa am solo euh, Serigne Touba bi mu jugee ci géej bi ba ñëw euh, Touba nekk njaareem dafa ne nañ ko sant la yàlla muy bis boo xam da koy jàpp mu di muy màggal gi ngay suñu def mu ne kon xam nga luy màggal benn ku am poos génneel lu waaye am génneel togg sa kër doon dala ko ci picc mbaam te tax te tere la ko gan ñoo mus ta gis mu ne si woon ko defee yaaru dina leen jéggal looloo waral màggal gii ñu itam ñu xam ne tey weeru koor bi gis nga koñ boo dem ñu ngi def café joxe ñam baax na naam baax na ci weer mais weer yëpp lañ ko war a def yëpp la baax ko man rek saa yoo xëyee da nga koy gis naa koñ boo dem ñu ngi defar café fonk nañu weer baax a baax waaye dama bëgg bu yooyu passé ñu di ko continuer duñ ko mën a dese waaye ñu ko def di jàppale nit ñi di berndeel nit ñi buñ ko def ci weeru koor parce que weeru koor moo gën a màgg ci weer yi waaye weer yi ci deseen a nañu luñ ci doon def ci weer dañ ko yokk ndax li tax weeru koor am changement weer yi bu la ko fayee 20 weeru koor yaa am 40 dafa duubal weer yi loolu moo tax rek ñu def na yëpp la yaaram nangu bis yëpp la yaaram nangu mais weeru koor mooy patron bi nekk na patron bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk patron yonent yi noonu la weeru koor nekk patron weer yi ñu nekk kon mu weeru weeru njëggal la weeru ñaan weer la woo xam saa yu ñëwee dañuy tëj bunti safara yi weer la woo xam saa yu ñëwee dañuy ubbi bunti àjjana ñëpp dem àjjana weer wii kenn du ci lakk kenn moo tax mu ne weer wi leen ñun ko lu ñuy gaawantu ngi mu ni profité lu ñu ne lan la ñuy profité mu ne xanaa ngeen jéem cee yokk lu ngeen di def ci lu baax wax ci lu baax jàppale doomu aadama ragal ci yàlla jaamu ci yàlla we jaamu yàlla nag waxuñu weer ko déedéet weer yëpp la ñu war a jaamu yàlla ndax mais changement bi mooy duñ la fay ci weer weer wala daan la fay dugal ci weeru koor moo tax mooy seen seen kii rek mais weeru koor weer wu garaaw a garaaw la boo xam ne yàlla ko tànnoo boppam def ko ci weer te sansam la mu weeru koor muy fukki weeru benn ba ko ñaara di weeru koor kon ku yàlla def nga fekk ko fekk wat ko santal yàlla bu baax ndax weer yi boo xamante ne malayka yëpp dañuy wàcc suuf si benn fepp bu nekk am na ay malayka yoo lay siiwal benn fepp bu nekk suuf si boo tibbee sa loxo ba mu fees dóor sa loxo rek boo ko génne doo mën a ñaar fekk mais fépp bu nekk yàlla bàyyi ko fàtte ko borom ne ko ñaari maale ko guddi ak bëccëg ñaar guddi ñaar bëccëg ñun lay siwre yow doomu aadama yi noonu lay siwre fépp suuf ku ci teg tànk da nga wax foo jëmoon moom dana wax boo ci toogee dana wax nañ ci toog heure bi ñu ci toogee kon loolu suuf si am na borom réew mi am na borom diggante asamaan si am na borom kenn jiitu ko tudd sama borom tabaaraka wa taala kon yal nañu yàlla defal jàmm defal ñu sutur lu ñu fi doon jàng tey ak lu ñu fi ñaan yal nañu yàlla boori yëpp defal ñu ko ku fi ñëw daal yàlla na yàlla fas see aajo yu biir ak yu biti yàlla moo xam daa biir ak yu biti moom xam ne lépp yàlla fegal di ñaan yàlla ñuy jàppalante di ñaan yàlla ñuy bëggante jàmm te ñaan ci réew mi ñu nekk yàlla dafa jàmm élection yi ñu jëm yëpp muy opposition yàlla na yàlla defal leen jàmm au pouvoir yàlla na desal defal leen jàmm ndax réew kenn rek mën a jiite ñaar ko ko jiite kenn du ko jiite waaye foog moom xëccoo kon nii xëccoo yàlla na may jàmm ki am ndamit yàlla may jàmm ba mu jeex réew mi ñoo ko bokk yàlla def fi jàmm suba taw fi ndoxam jàmm képp ku fi ndoro indi yàlla nañu yàlla jëlal kooku fa waaye réew mi la réew jàmm la réew diine la réew moo xam ñëpp àndandoo kon na kenn ku ne bu jullee na ñaan yàlla réew mi am fi jàmm ndax jàmm ji du jàmm gouvernement bi rek jàmm ñëpp lay doon bu jàmmee mi ñëpp am jàmm kon jàmm ji yàlla na sax te yàgg coow yi ñu dégg ci yeneen réew yàlla bu mu ñëw Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ki fi yàlla teg yàlla na ko yàlla jàpp la ba mu jeexal parce que dina jeexal waaye diirum fi toog yàlla na ko yàlla tegal ko jàppale ko ba mën a doxal li muy doxal su jeexee rek ko ko war a yàlla jàppale ko mu dem loolu daal laa doon xam lu ma ñaan te ñaan seen programme bi seen émission bi yàlla yëkkati ko ci kaw ba ngeen mën a egg fa ngeen bëgg a egg sant nañ yàlla gërëm nañ leen yàlla na yàlla dafa jàmm salaam Masyaallah, comme ni ma lañ ko waxé won rek ñëw na ci ki nga xamné luy ñak rek mom moy ñak néna bo ko gissé rek sa xel day dem ci ki nga xamné moy première dame mu nekk jigen li nga xamné jigen ju mën góor mu nekk jigen li nga xamné doxul dara ci li nga xamné muy ñàkk fayda day dox ci l'islam gis ngeen tay li fi am jaru sax ñu leen koy netal ñu jël ndogu yi daat ko yóbbu ci jàkka yi jël ndogu yi daat ko yóbbu fi nga xamné moy borom di doole daal ci boole li nga xamné nak moy ay ñaanu naa sax duma gorom dama naan yaayam Euh, yaay nuy naa la. maa ngi lay fay. waaw yaa ngi am jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah maa ngi sant yàlla baax. waaw macha allah tey euh, ñu daal la fi fekk nga jël sa xaalis bu bëree bëri daal koy def su ndogo yi jël xaalis bu bëree bëri daal koy def si li nga xam ne moo nekk say ñaanu yaay mënoon ngaa dem Sorano toog fa di jaay pukkare wala dara mais defoo ko da nga jël xaalis bi yëpp daal koy def pour dimbali doomu aadama yi yaay loolu noonu tey lan nga si jublu. waaw marmite du cœur bi tey dafa tase ak may ñaanal sama goro sama yaay yaayu Modou. fii la ko fii yàlla moomee woon. li ma gën a yëg ci sama yaram ba sentir ko tey sama xol jeex mooy suur bi sama yaay nelawee mu yemmoog heure bii tey ñu nekk feek moom bi ma fa nekkee moom faatu moo ko yor mooy def lépp lépp mooy sang mooy def lépp kon nag ba tey ji kon firnde baa ngi kon firnde baa ngi dama koy ñaanal daal wér gu ànd ak gudd fa di sant soxnaam Fatou Diallo. nga xam ne at bu ne day ñaanal sama yaay te ñun duñ ci am lu dul daf ñuy woo téléphone man bi may ñëw fii une jot na xam nga kooku deful dara ci ñaan. ndax lii itam wax dëgg yàlla du doon guléet yàgg na ko def nu ñuy man mi li may doon magam li may defal ëpp na loolu keneen noonu keneen noonu keneen noonu lii moom dañ ko ci ñaan yàlla rek mu bañ a dakk ñaan yàlla guddal fanam ak ñëpp ak yow mi ak ñeneen ñeneen loolu daal laa ca moom ci wax. ndax bu ñu suñ kër yaagee mënal nañ ko faa defe waaye defewuñ ko ci toujours Adja Faatu day woote ñu ñëw def fii depuis bi sama yaay gaañoo sama papa ba léegi fi lépp fii lañ koy defe muy sedd suñ xol kenn du ci indaale dara booy ñëw. yal na ko ci yàlla fay yàlla may ko ci ndam ki muy ñaanal yal na ko yàlla may yokk leeram may ko àjjana ju kowe kowe kowe kowe kontaan nañ nag ndogul ci at at bu ne at bu ne la chaque année ndax ba ko dalee def ay at la yàlla rek yàlla nañ dund ba xale yi di aw ci façon yi. ndax façon yu baax yi rek ñoom ñun moom la ñuy def moo tax dañuy ñaan yàlla suñu borom. jël nga ñi mamati baay boole leen ak ñoom ñi mamati yaay ñu mujj doon samay waay gëm naa dina baax dina baax dina baax dina ma